ak man naa xiftu ragaluma tax nii si benn responsable bu ma dal alaakase mi ci li ji ñu ne kon ñu déglu loo wax mu ne dama ne sarwaawu doom ji mel ni Moustapha laan maadam ma dootu ko ëmb mukk asdaafu jabar min sëy mi jële ko ci jëkkër bay laa yomal xiyaam moom laa leen indil tey actualité guddi gaa ngee bëgg a dem dañ doon nuyoo rek nañ dem ci film bi film bi yéen a ko bàyyi woon keroog kër Baye Mbarick waxa pakarara waxa pakarara baax da nay li fa la ñu woon keroog ci le film bi doxe li ñu doon yëngal mooy actualité bi toogaat leen bu baax te toxoñu maanaam maanaam te fottar si nopp yi ndax du xool dégg la su taxoñu fottar si nopp yi bopp <laughs> nu jublu ci film bi yal na leen yàlla baal yal na yàlla faj seen aajo yal na yàlla yokk seen sutura bi ormati seydil wujoodi defal nu ko defal ko jullit yépp bi jaay sidil awalina wal axirina e eh, nu ngi nii dëgmal déwén sori na lool kaar soixante cinq ans ngii ñu dëkkmal ko ñu ngi di jox gannaaw soixante quatre yàlla mi mën a gunge yàlla nu gunge ba nu teer ak soixante cinq gën jaarafeti teere garaat ba waay lamboo ronu fekk bu ko gën a kore wér bu waay lamboo wër fekk ren nëgër ni déwén yàlla na la fekk bu ko ëpp ku ci saw fan nag ba yàlla nar koo jël نكرني تبين يالنا لفك كبير أجانا جاي سري لولينا ولا آخر برم تيري دنيوني جلد بونك وارنا بوسفا ويفر بيوت العالم دي سد سطال اللي لحل دي جورم بي تكي لحط دي جورم جانج بسيمي بمجيه من يال لخ بي دي مان تك كسما لخ بي تفكاتا تفكاتا نت لي جوغي اللي تخل سوكنا ربا يمون رجوك اللي قوتي يالنا جوغالي الإسلام سيدي دوكم جوغات نك سي تربي لاي دوخ يالنا دي مالك لي ما نون لا جولي دي تب وا سما ليخ بي يالا ما نجي لال دي جور دي كو ديف تي غودي لندم نتا اي لو ني ما دان تاخ غودي سحار با تاغ دي نيت كو لا دوغ سب نيت لو دال غودي دي ني خيو ييك كوريك واي فك نا ني تفارو فاي لامب يي ليم كو نا تك سب ليخ سي سب كو لا سو بوكا ني خون كات كين دو جو nga nak def ba ngi di tegu ci loxo bi ci sa yermane soo dogalee ab jugaam ëllëg pour wëcc yal na jugaaleeg lislaam ndéem dootul jugaat nii lay doxe dem yal na demaale liimaan door a tëdd kon nag déwén a ngi ñu dëkkmal yal nañ ca teer ak lislaam bu teq teq nar a amit yal na borom daanu àjjana bi ormati seydil wujub moom rek moo bari doole moo am mën-mën moo am sañ-sañ amul dara loo fi gis lu sax dàq lu réparé du yëfi yàlla yi mu fi indi woon ba tey kenn réparé bu ci dara loo dégg defaraat leen ak jubbanti leen du yëfam yëfi ku doon yëf-yëf lu rek la waaye yëfam yi defaraatu buñ ci dara asamaan saa ngi fuñ ko ràkk te ban dëkk kenn jant bi fan lañ ko yokkaat leer seen géejëm gi fan lañ ko yokke mbaa ñu wàññi fa xorom si seen te maam Aadama nag ba tey nii lañ ko fekk bàyyi ba nu nit nii lañ ko fekk ni lañ koy bàyyi kon nag ku yëpp yooyu te piire yal nu yàlla boole ca ña far farloog moom bi jaay si di law li man na wax naa benn baat dinaa ko répété addina yàqu na nit ñaa koy soow waaye alquran dafa wax borom bi def ne laa tasubbu daara fa ana daharu laa tasubbu daara fa ana daharu bu leen di ŋaññi addina man may addina man yàlla li ma wax mooy du ma nangul kenn dëggam kenn maa ngi ci dëgg nu ngi ci dëgg ñoo yor dëgg bañal naa ko Ibou Sakho ku mu doon lu ma mën a nangu maa ngi ci li dal samam xel te neex na looloo dal tiijaan bi moo dal murit bi moo dal xaadir bi moo dal laayeen bi moo dal catholique bi moo dal jullit bi maa ngi ci li dal samam xel te neex ma ñun ñépp nag dafa am fu ñuy daje ji dafa am rendez bu kenn dul jàpp ci ñun foofa la dëgg ne dafa am kuñ fay fekk kookaay borom dëgg bu ko réegee ku yor dëgg mu jox la ko ku ànd ak dëgg yëpp mu fay la kon li ne bi noonu allahuma arina al xaqa wal baatilu baatila yàlla la nga may woon ba ma tudde ko dëgg yàlla nga def loola di dëgg ndax léeg nit tëgg tudde dëgg lu dul dëgg defe ne nii la te dul ak defe dumi te mu ku gaañu moo la gaañ defe ne ni la te du ni ak defe ne du ni te mu dina ku gaañu moo la gaañ la ñuy defe nag nit ñi la yàlla di loola bi jaay rasulillahi la ñu defe ne du ni yàlla bu mu di béy laa yomal xiyaam yàlla na yàlla taxaw taxawu leen yàlla yàlla yokk seen sutura yokkal ko jullit yëpp yàlla nañ fa daje déwén ak déwén jéeg ak déwénaati jéeg góor gu mag gi yàlla na ko fi yàlla yàggal sunu sunu baay bu baax bile di Ahmadou Diagne xam bu ko yàlla xamal ak ñu mel ni moom Moustapha tax na mu ne toujours bu ñu lalee lal gi ñu ñaanalaale ko yéene waale ko it lu fiy jóge ci tiyaaba ñu bokk kook moom te it mu nga def ca deram waaye ci mawlud bi la nelawul te la mu nekk fas na ko yéene bu ko yàlla nangoo mu bokk ko ku fi jaar mbaa nga romb fi ak kuy jul yal na yàlla sakkanal jëf yi yal na yàlla sakkanal jëf yi yal na yàlla sakkanal jëf yi nii nu gisante ci tànk bi xàmmante noonu yal na nu gisante noonu ci àjjana àjjana ju àndul ak coono door caa dem àndul ak fitna door dem di jaay ci di la walina wala axira te nii rek la nit ku baax day bàyyi xelam ci ñaari yëf démb ak ëllëg waaw waaw démb ak ëllëg démb du woon nii ëllëg xamule nan la nii la woon démb naka la ëllëg وألق السيف يما ولن تضاعفه ألق السيف يما ولن تضاعفه بالقتل يا تاجنا القلوب الله مالك مخلوق ألق السيف يما ولن تضاعفه بالقتل يا تاجنا القلوب مولى مالك ألق السيف يا يوحنا عد من يبي اطلع أخي الطيب يا ولا الضبايب أول من أم يكون ترني خرجين يتيرك كلاس أخيط الطيب يا ولا الضبايب أخي الظالمين أم يكون ترني يوني خرجين تواصور له أخيط الطيب يا ولا الضبايب أم يوني خرجين يتنكلا أخيط الطيب يا ولا الضبايب ديما مي باسي أقيب سيف اليد ولم تبايت أكيمين مك أقيب سيف اليد ولم تبايت أتقلق من خمني خم أقيب سيف اليد ولم تبايت كن نقوير من قباسي أقيب سيف اليد ولم تبايت أقوير من قدقة جيخ أقول أقيب سيف اليد ولم تبايت بلدك مرت خمني خم أقيب سيف اليد ولم nag wax naa la ne loo am am sens daa duggi première saa yooyu joodul fekk décembre ji mukk axi ba tari ak ku la a wax ak ku la a bindal di nga dugg première cent yéen loolu bu fekkee deux cent. ak xeeb tarif yam walan tu bàyyi dama sori sax waaye le premier fekk trente yi dina la fi fekk. ak xeeb tarif yam walan tu bàyyi suba jobul fekk ju ngoon ja. ak xeeb tarif yam walan tu bàyyi tan. xamuma ne la ak la waaye loolu fokk ma. ak xeeb tarif yam walan tu bàyyi tan. Baye Alaaji Malick nekkoon sama mbokk mi may ma da ci ak yow sama ma digal rikk waay faj sa it na nga farlu farlul fil mi bu amee liif ak laam mooy tey bu amee liif ak laam su amul liif ak laam ñewar a ga mujj ñu mas ko ñaari neeg mooy firi bés rek yow mun mooy firi waaye boo nee al rek kon tey la boo nee al yow ma tey la boo dee yow mun nag bés rek la ci lépp nag ci lépp rujulu mooy firi góor ndem amul liif ak laam nga maas ñaari lonk góor boo dee liif ak laam góor gi déggu da la alquran wax yeete ba tay inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila firawna rasulan fa haase firawna a ah, rasula ba alaaji Malick ne ak yow mbokk mi faj sa it na nga hin yow mi ci tey jii nga am ñu ne lu tax mu ne walam su dim fa itu wéy na mun a too caa dabaatal dara dara dara dara nga ne ma xaar ëllëg mu ne wa fi xaddinaa nekk na ci su ëllëg jii ngay xaar yaatal wannaa yow dof bi la ko yóbbu ak fardu xamala di nga ko fekkee mbir waaw gisu leen ba tàyyi xëy ndékki génn liggéeyi tuuti ñu delloo si la ba tàyyi xëy ndékki ba suur tàggu kër gi tukki mbaa liggéeyi mbaa doxi soxla cinq minutes yuux gi jib ñu dellu si fukki sa yére indil amul ba tàyyi ah, en waaw mu ne ma firiwaate ko yaa aqi aqi alaaji malik ne yow sama mbokk mi rikk waay faj te hit na nga farlu fil yow mi ci tey jii teew te nga am nga ne ko lu tax ci mu ne wal am su dem saa yi tëtun aji wéy la mu ne doo ca dabaatal dara dara dara dara nga ne bu subaana mu ne wa fi xat ne nekk ni ci dikkub suba mu jege nii yaatal wanaa yow aji ñàkk fay bi ji dof bi nekk na ci lu xëy ba ak pat bu ñàkk xam di nga ko fekk kenn doo ko fekk تاج ما يجي من حد نبضك كن لا لبول كن لا لبوك خليل البقاء من حد نبضك كن لا لبول كن لا لبوك مين يروك أرمونات سفان سينك فينو تلو دكتور نخمن لينكو وبيهن غيره الله جي مالك نه بابا لا دمي كونترول كو فك موي لو توتي توتي توتي بابا مام ادم جيلغول والام بابا نوين جيلغول والام بابا اسحاق جيلغول والام بابا اسماعيل جيلغول والام Idrissa jëlagul wàllam Ibrahima jëlagul wàllam Sakariya jëlagul wàllam Yahya jëlagul wàllam Yankuba jëlagul wàllam trois cent treize yooyu ak cent vingt quatre mille yi kenn laalagu ko mu ngi mel ni daal armunaati soixante cinq ci décembre soixante quatre ba mu tolloo foofa àddina ci laa ko wirité seet weer ya ak sanen yaag at yaag heure ya mu di lu tuutee tuutee tuutee lu tuuti loola woon nag baqaa des na ci léegi nag xale lu nu tuutee tuutee tuutee tuuti waat ba nag soixante cinq teru na ba ñu xolli janvier xolli février mars ak avril ak mai xolli nañ ko passé nañu septembre ba ñun ci wen kàttin kon tey xale lu lu la woon ba ko dara laala ko baqaar defaat na nag xalilun leneen lu néew a néew a néew a néew ma giñ na ne billaahi law daraa doonte xamoon na ma xaabatahaa mujjug àddina man raamahaa ka daw jëm ci bu ko xamoon billaahi kon la yoxu ba mu ay rey maatar ya waaw waaw بكتمان هم جل بكسران قبل جبيلان دلك إذا بجد كيرسي قدر من نقول خليل خدوم يا رايف يا محمد خبيرا يا قافل كليلة ثقيلة وما هي إلا لما ترفق بوما القرآن وخنا قوس داج خسير دير مقتلة أدنى دير مقتلة يرى ها جرتو نقو يرى دنا تسيري جس صوف جرتو نقو يراها جرتو نكو نك متوينه تون لو غودل نيوكو جرتو خافلونا وي سغان اه عبر القران انهم يرونه بعيدا نون ونري قريبا يوم تكون السماء كالم وتكون الجبال كالاحك ولا يكون امين امين يبشرهم يود المجد آه القران قبل يا محمد يرونه mbindeef yu jortoo nañu àddina bàyyi dal muy lu soree sori xamoon aayat yàlla muhammad wa nareexun nu xam nun yàlla ne xariban lu jegeñ a jegeñ la xamoon aayat yàlla muhammad moo tax bàyyi alaaji malik ne may ma xalilu alaaji malik ne xasiirun lu gàtt la yaraaxaa jortoo na ko xaafiloo na way ñàkk gis ñene bàyyi datu te billahi wa maa yeddeet àddina gi ida kallam i ngaree xefe xippi moo ko gën a gàtt lu tax mu gàtte noonu foo yàgg dafaa jóg dafaa jóg dafaa jóg naan ko fa soo fa téye jóg dafaa jóg génn fa tànk nga téye dérange téye dérange nelaw fa soo fa téye jóg dafaa jóg feebar fa soo fa téye jóg dafaa jóg dee fa waaw yal na yàlla jox borom ci wuru sa àjjana jox ci jullit yépp kon nag yóbbal boobu góor gi jox mu doy na yóbbal yàlla bu mu rot yàlla bu mu yàlla bu mu yàlla bu mu rot yàlla bu mu xajam xam ngeen xajam xam ngeen xajam waaw góor ak yépp lu am suuf lu neexatu la lekk te dara amu fi lu dul moom yàlla bu mu xajam yàlla bu mu rot bi jaay rasulillahi fay kon da ci moom a watataat waaye actualité bi doy na dañu war a dem ci film bi sëriñ bi de yëlaa dana dàll amatuma dàll naa ko yàlla wax na dàll dafa amatul dàll man xaw ma nit ñi waaye man torox naa la daal ci sama kër ñoo bokk dëkkit ka ngéej mooy gën a neex a yóbbu daal lañ la saraxe Ndakaar eh, bu ah bu amee keneen ku bëgg a saraxe it bu yeboo waaye daal sarax naa la daal aywa ma ne nu ngeen dem ci mbir mi fañ ko bàyyi woon keroog ngeen toogaat bu baax duma wax nag toxoñu leen ndax du film bu ñuy xool dama naan fopper ci leen nopp yi te déglu yal na yàlla def ñu yàbbi fi ngëneel ngëneel lii yal nañ ko jariñoo e sama xarit yooyu maa leen di nuyu maa ngi leen yàlla doon naa fa bëgg a ñëw sànq romb naa fa jeexit yuy wane ni am na ku fi ne buñ ko yàlla mayee guddi jàmm nag xëy na am na fu nu war a daje ëllëg ci lu war a yokk ci sunu njaboot aw xartam agsi na ci man ñu sargalant gi gise nag xel mi jóg ci ñun mook ci yéen mook mi ngay ñaan guddeeg bëccëg sutura bi yàlla na sax bi war ma te seydil wujud e, e, e, mbërëm yàlla bu mu ragal ku ko songa daanu ku mu songa daanu Baay Alaaji Malik nee na booy def lu baax di wax lu baax di nar lu baax boo soo boo soo boo mbedd seen lu bon ca sa kanam bu mu la tax a wàññi say tànk doo ko dab doxel na nga doon doxe rek booy def lu baax di wax lu baax nar lu baax boo sóoboo mbedd seen lu bon topp la bu mu la tax a yokk say jéego du la dama koy waxaat de door a dem ci boy ji Baay Alaaji Malik ne booy def lu baax di wax lu baax di nar lu baax boo sooboo mboj day dem seen lu bon ca sa kanam bu mu la tax a wàññi say jeego doxal na nga doon doxe rek doo ko def soo meloo noonu gëstu it seen lu bon du la topp lu tànk ba gaaw gaaw bu mu la tax yokk say jéego du la def te kat wali yoo gën a bari doole waaye mënul kii mënul ñaar ñaar ñi yu mënu ko ñaar ñi ma lay bëgg a wax wala yu mënul a gaañ ku ko tooñul mënul a jëriñ ko gëmul billaahi wala yu laa wax wu piire kooku wu ñu foog de wu piire laa wax wu piir piir woowu mënul gaañ ku ko tooñul mënul a jëriñ ko gëmul yal na yàlla taxal ci njub tëggu njub bi jaay ki di wara waaw la la wax xam nga ma maa ngi nekk ci néeg bi da ca bokk kenn woy dégg gars yi naan Moustapha Laay min jéemin baax ah. maa ngi tëdd ci néeg bi di ko dégg wax boobu diis tànnug yàlla xam nga day wuteeg tànnug nit léeg-léeg nit juum tànn wax naa ne yàlla ku mun a yaa gën yaa gën parce que dafa xam biir ak biti léeg-léeg nit gënal ku gënul xamal ñaari yëf yi tax nag ñàkk a xam mbaa par parloo par parloo dina tax nga gënal ku gënul ñàkk a dina tax nga gënal ku مام يالي مي بار بار لو ول نا دارال لمبكو كومو گنال يا گن وخط كرر بعد النيل بعد النيل رؤية من يقول أوفي لفئة واحتفل فقال هابيل بأهد وقتفنا أو او موي أتكرر بعد نيران takarara batang nairo ya oh ya النيل بعد النيل تكرر رؤية من يقول اوفي في حتى واحتدمي انا جيزو وقد تكرر بعد النيل رؤية من رؤية من يقول اوفي الذي اهت واحتسمي ما دمت sidaaji Malick maamam nebi dañ ko xasaloon ci mag ba mu ñëñ waxoon naa leen keroog cosaanam ne amul néegu ndey ci mag te arab ak lébu ñoo yem dañu fonk néegu ndey moom amul néegu ndey mag abdul mutalib laa wax moo jur abdoulaye fekkul baax mag ndeyam ndeyam a nga dëkk yasari ba yasriba mooy medinatul munawwara ah nabi noonu bu ko kenn waxati yasriba soppi ko wax ko medina waaye tur wa mu baaxoo woon mooy yasriba dégg naa ci mag mu baax mu ne bi ndakaaru yi door a sañ ci fii ñu di ko wax ci leen bay alaaji malik dana déedéet ne leen medina ñuy wax medina kon nag nabi medina daan nañ ko wax yasriba alquran sax làkk na tur woowu suratul ahzab soo demee am na fu yàllay wax yaa ahlal yasriba laa maqaama lakum farji'u wax ba nag du waxi yàlla benn xam nga alquran lépp yàlla waxu ko am na ci lu yàlla wax am ci lu malaaka wax am ci lu firawna wax am ci lu iblis wax am ci lu saay-saay wax ndax day nettali rek wax wa is yaqulu almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun ñooñu ñoo ne yaa ahlal yasriba laa maqaama lakum farja mu ngi mel ni rek may nettali ne keroog ba Basiiru Cuun waxee nangam keroog ba seen ba uh, nangam wax boobu nag ñu ne sama wax la fekk damay nettali wax wax Iblis ngi kon suñu laa yómi yu fa soo koo wax. suy na ko minal munsirina ila yomil waqtil maaloomi kooku bi insité que looku yemam ak miina juróom-ñeenti xaalaangoo borom téere yi nee nañu ko amee bopp bu tëye sedd soo ko bindee takk ko dootu la metti mooy jeexu wasaafaat sis kay jërëjëf yal na yàlla dogal ci yëri àjjana lamin jiiju yaa moom bu mi de xam ne lislaam a bari koom alina wa aleyka salaam lan jóobu jóob jóob jërëjëf jóob boroom lami wurus yi yal na yàlla takkal ci wurusu àjjana jabari lamin jiijoo ko moom jërëjëf Basir la mu digge woon foofu la ko fukki daf koy def ni Basiru Njaay defoon daaw beralal lamin jiijoo xam yooyu de est-ce que lamin ak mbaw ku ci ne am na mbuba ci alaaji Mansoor Gay suba est-ce que jërë jëf waaw noonu la nit day am fu mu féete day am foo féete bu ñu defee réunion mbaa ñu def meeting nga ñàkk ci sa yëf mbaa ñu oo nëbbi nga ñàkk sa yëf nga dem ca làmba ji ñàkk sa yëf su fekkee sa yëf du def fenn nag xamu ci yow daal yemuñu addiye yemuñ addiye boo ko joxee borom daraja yàlla dina la fay waaye dina ci dindiwaale daraja waaye jox ko ku amul daraja yaakaaroo mu ñaanal la xamala ko fenn dafa am solo man ak Ibou Sakho ku mel ni moom ak mel ni ñun ñun lii jaar ci ñun bu nu defee noonoo ko moom juum wax naa ne romb fi gumba muy taw nga sarax ko cinq mille francs dem nelaw te ñu bari ñu baree baree bari te léeg-léeg nit fab cinquante mille yóbbu ko addiyee Tiwaawan baa nga fab cinquante mille yóbbu ko Tuubaa baa nga fab cinquante mille yóbbu ko feneen kon nag mbir mi am na lu ci roofu loolu yàlla kese waaw waaw waaw waaw yóbbu cinquante mille Tiwaawan miskin yi ci Ndakaaru du jeex loo ko yóbbu Touba bëgg ku la xàmmee ak ku xam ne sëriñ bi ñëw na fi loolu di waaw waaye romb fii gumba timis muy tawte nga bokk ko cinq mille francs dem nelaw dafa tër xam ngeen ne kii kii jëfanteem bi yàlla rek la yàlla rek la maa ngay dem balaa guddi toogal gaaw xool ko rek Idriss xool ko rek euh, euh, alaaji eh, nii la waay ngay def lillaahi il ibtiqaa naka la ko waxoon walam walam naka laa ci aaya wa amaman fa amaman ahsaa وطقى وهدق بالأصنع فسم يسروا لليسرى حمدهم وما من بقل واستغنى وكذب بالأصنع كوكو فسن